bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci émission waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa meñu may fanaanug jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendalug jàmm lépp la ñu jaamu yàlla ci waxtu su néew ci xéewal yam ñu xéewal lal te mu doon xéewalu ibaada yan nañu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin waaye duñu deñ di ko sant ci xéewal bam ñu xéewalal te mu doon xéewalu nelaw bi nga xamante ne dafa bokk ci xéewalam yamuy xéewalal jaamaam yi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa mu di ñu jàngal sant xéewal yooyu nañ koy defee rawatina xéewalu nelaw bi nga xamante ne moom la doomu aadama yi doon jëfandikoo waxtu su néew ci ginnaaw waaye mu ne la yow jullit bi nga xamante ne yaa bokk ci daairatul iman bu la yalla yàlla wërsëgalee ba nga jëfandikoo xéewal boobu di nelaw dafa am la nga war a sante buur yàlla sant boobu nga war a sant sa borom ngir mu yokkal la xéewal boobu mooy yonent bi nee na da war a wax ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yi kawe ñeel nañu yàlla ndax mooy buur nga xamante ne moo faat ginnaaw si mu delloo ma sama ruux waaye ci moom yàlla lay dellu subhaanahu wa taala mbokk yi yenn jaami yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yéen a ngi fàttaliku bi léegi ñu ngi ànd ak ci nasiha laahee biir conseil ba ñuy jox suñu ñañu teewal ci pencum ndaw réew mi ñu doon suñu député yi nga xamante ne fan yu néew ci ginnaaw askanu Sénégal jox nañ leen seeni baat ngir ñu teewal leen si pencum ndaw réew mi su ko defee mu doon nguur goo xamante ne buur yàlla mu ngi ñu wax ci alquran ne mooy kiy joxe nguur ku ko soob comme nañ leen ko le fan yu néew ci ginnaaw ca aaya ba nekk suratul ali imran ñu ngi ànd ak yéen ci nguur ba compal jox ko kenn ci jaamaam yi di yonent yàlla daawud alayhi salaam ci suratu saad démb ñu ngi doon waxtaan ak yéen ne ñoonu yàlla daf ne yonent bi ne na muñ waaw ca la gaay di waxte nga fàttaleku sama jaam ba ñu naan nabiyullahi daawud alayhi salaam nabiyullahi salaam am fa ko yàlla jaarale ak la ko yàlla jox ci xeetu xéewal yooyu mu bokk ci bur yàlla nee na ñun yàlla ñoo ko tàggatal montagne yi daanoon nañu sàbbal ànd ak yonent yàlla daawud ñuy sàbbal turu borom bi subhaanahu ci ngoon ak ci bëccëg wala ci ngoon ak ci suba mu doon nguur goo xamante ne yàlla daka moomale doj yeeg montagne yi tey ñu fas toftal ci aaya boobu beneen aaya la yàlla tàggatal yonentu yàlla daawuda alayhi salaam mu nekk ci sous contrôle yonentu yàlla daawuda alayhi salaam mu nekk ci nguuram kon la tax daawuda yàlla tàggatal ko montagne yeeg picc ya ñu bëgg a wax si nii ndax daawuda yàlla dafa reconnaître ne innahu awaab da di jaamam joo xamante ne daa jël léppam daa jël lépp loo xamante ne yàlla moo ñaane la ko ak jëmm jooju mu daal delloo léppam fa boroomam subhaanahu wa moo tax nga déggee ci aaya bi ne wadkur abdana daawuda dul aydi innahu awwaab na nga fàttali ko suñu jaam ju baax bi nga xamante ne mooy yonentu yàlla daawuda alayhi mu nekk borom loxo bu yaatu borom loxo bu gudd borom vision yu leer nañ mu doon borom xel bu yaatu boo xamante ne mébétam foo ko takk weesu na ko waaye ànd loolu daka sellal mu laabal xolam laabal xelam leeral yéenim ba tax yàlla reconnaître ko mu ne innahu naka moom daawuda de awaab da di jaam joo xamante ne daa jël léppam jébbal ko boromam mi ko bind te mooy ki ko wërsëgal loolu mu nekke subhaanahu wa kon ñu nit ni bëgg fas yéene dénk suñu député yañu ñu toogal keroog ci assamble nationale mooy ci péncum ndaw réew mi ndax yàlla suñu boroom daf ne yonent bi ne roy ci sama jaam joojun di nabillahi daawuda alayhi salaam kon tey ñu fas yéene toftal aaya ba tegu ci aaya bañ leen jàngal démb moo ne buur yàlla daf ne yonent bi ci téere bi mu ne ko wa tayru maxshuratan kullun lahu awaab wa shaddadnaa mulkahu wa wa faslal xitaab sadaqa allahu alazim mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot wa taala mu ngi di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sama jaam jooju di nabillahi daawuda alayhi salaam te ma jox ko nguur waaye am nu mu mel ak loolu ma ko jox ci nguur ba muy nguuru gannaaw sellal na yéeneem sellal na xelam ak xolam am na fa ma ko boole am privilège ya ma ko jagleel kon yéen ñi askan bi jox seeni baat yéen mi teewal askan bi ci pencum ndaw réew mi di député kon nañ leen jël référence ba nga xamante ne mooy nekk na yonentu yàlla daawuda alayhi salaam te buur yàlla baaxee ko yonentu bi ci suñu téere bu mag bi di alquraanul karim ñu nit ñu jukkil leen système de vi nabillahi daawuda ci alquraanul karim ñu àndil leen ko ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi fm 97.5 ci waxtu wi kon nañ leen bokk déglu ñu mën a njëriñu la yàlla reconnaître jaamam boobu di nabillahi daawuda alayhi salaam bur yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw bi ma tàggatalee yonent yàlla daawuda alayhi montagne yay ànd ak moom ñuy sabbal yàlla ci ngoon ak ci suba si ba léegi bokk na ci la ma yenoon ci yàlla daawud mooy wa tayr ak njanaaw yi maxsuuratan ak njanaaw yi nga xamante ne dañuy bàbbeeku ñu doon ay mbooloo kullun lahu awaab njanaaw yooyu picc yooyu de dañuy doon mbooloo nekk ab say boo xamante ne dañuy bokk ànd ak yonent yàlla daawud ñu jébbal seen bopp fa yàlla waaye nag dañuy doon njanaaw yoo xamante ne yàlla neena maa ko tàggatal yonent yàlla daawud alayhi salaam loolu di benn ñaareel bi yàlla ne wa shaddadna mulkahu ñoo ko dëgëral ñoo ko appuyer jàppandalal ko nguuru nga xamante ne ñoo ko jox ngir mu nguuru ko ñoo ko def mu doon leader bi nga xamante ne moo jiite doj yeeg ngenaaw yi waaye ñu jàppandalal ko ngir mu war a mën a doxal loolu ñu ko jox mu doon nguur bu mag woowu waaye ñettel bi mooy wa aataynaahul xikmata ñu jox ko xikma di sagesse ñoo ko jox sagesse bi nga xamante ne noonu la war a mën a doxalee na mu war a jëflanteeg doj waaye yàlla ne ñoo ko jox sagest bi nga xamante ne noonu la war a mën a jëflanteeg njanaaw yi waaye ñoo ko jox sagesse bi nga xamante ne moom la war a jëflanteeg doomu aadama yi moo tax yalla ne wa na ñoo ko jàppandalal dëgëral ko dooleel ko mulkahu nguur bañ ko jox waaye nag wa naaxul xikmata ñoo ko jox xikma buñ ne xikma nag mooy sagesse waaw yàlla nee na ñoo ko jox sagesse bi nga xamante ne noonu la war a doxalee ca namuy muy jëflante doj waaye ñoo ko jox sagesse bi nga xamante ne noonu la war a mën a jëflanteeg njanaaw yi waaye ñetteel bi bokk na ci buur yàlla ne wa faslal xitaab ñoo ko jox kàddu bu leer bi nga xamante ne bu daan joxe discours da doon leer naññ da doon leeral lépp la nga xamante ne daanoon na ko jëfandikoo kom kàddu ngir lamu mu war a jëfe jëmale ko ci ñamu jiite alayhi salaam moom daawuda kon ñu gis ne am na jaami yàlla yi jiitu alquran di ñu ko nettalil yàlla compal leen astuut ci nguuram mu jox leen la nga xamante noonu lañu ñu war a taxawee ci pénc bi waaw mu bokk ci yenunti yàlla daawuda alayhi salaam yàlla jox ko moomeel ba mu war a diriger doj yi ba tax na doj yi di ànd moom ñuy sabal turu borom bi ci ngoon ak ci suba si buur yàlla ne nag ba léegi tàggatal naa sama jaam jooju di nabillahi daawuda alayhi salaam jox ko moomeelu njanaaw yi njanaaw yi si responsabilité nabillahi daawuda la nekk waaw njanaaw yàlla daka tàggatal mu moomale ko ci moomeelu yonent yàlla daawuda njanaaw yeeg picc yeeg tan yi ñëpp ci moomelu nabillahi daawuda alayhi salaam lañu nekke ci jamonoom kon buur yàlla tabaaraka wa taala la tax mu jox yonent yàlla daawuda ci nguuram la tax mu jox ko dayo bu toll ni daa diriger njanaaw yi ndax boo xoolee ci njëlbeenu bopp aaya bi yaa ngi gis innahu yàlla nee na naka yonentu yàlla daawuda de awaab daa jël léppam jébbal ko boromam moo tax yàlla tàggatal ko inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraak yàlla ne man yàlla maa ko tàggatal yenkeewal ko mu daldi moom doxalinu doci na doji di doxee na doj yi di nekkee ci béréb baleen yàlla placé yàlla ne moomeel boobu jox naa ko yonentu yàlla daawuda mu dirigel ma doj yi ba tax na ba yonentu yàlla daawuda di sabbal boromam ci ngoon walla ci suba si doj yi dañuy ànd moom ñuy sabbal borom bi subhaanahu wa taala kon yow mi yàlla jox nguur bu tuuti bu toll ni ngay diriger doxalinu doomu aadama yi kon nang ci def sa kemtalaay kattan na nga jël sa lépp jébbal ko yàlla na nga géem a roy yonent yàlla daawuda ci la mu jébbal léppam borom bi ba borom bi tàggatal ko la nga xamante ne mooy lam ñu wax ni yow it na nga nekk innahu awwaab na nanga doon jaam joo xamante ne da ngay jël sa lépp jébbal ko li yàlla tiral ne képp ku ma fal képp ku ma tànn jox ko as toq ci nguur yamay séddale ci doomu aadama yi na nga nekkee comme na yonentu yàlla daawuda nekke su ko defee yàlla dina la tàggatal la nga xamante ne bu la bàyyee yàgg sa sago rek kenn na xamut noo koy mun a faggo kenn na xamut noo koy mun a amee est-ce que yooyu dinga ko mun a tàggatal sa bopp tontu bi mooy déedéet waaye boo jëlee sa lépp nga jibbal ko borom bi jël sa xol selal ko am yéene bu rafet ci ñi nga jiite ak ñi la jiital nga war war leen delloo njukkal ba toll nii dañ laa tànn ci askan ba nga bokk ci askan ba ngay dund ñu tànn la jiital la ñu ne la yaa ñu doy yow it nga jël tànneef boobu jébbal ko borom bi ne ko yow laa yaakaar ci ni may doxalee lañ ma tànn ni yow laa yaakaar ca la may dérouré ca lañ ma dink ni bu du wutoon sa njàppandal bu du wutoon tànneef bang ma tànn ni konte woon duma am lii duma fi toog duma ma lii ngay doxee noonu ci sa biir mémoire ngay installé loolu ci sa biir xol na la allallahu xëy na yàlla mën na laa tàggatal la nga xamante ne fooguloo ko ci sa dundu amaana yàlla mun na laa tàggatal loo xamante ne kawe na si sa njorto amaana buur yàlla mën na laa tàggatal la nga xamante ne mooy la mu tàggatal yonent yàlla daawuda alayhi salaam wala donte mënut laa tàggatal la mu tàggatal yonentu yàlla daawuda waaye mun na laa tàggatal la nga xamante ne comme loolu la wax rek ca alquran nee na dalika fadlullahi yutihi man yacha inna al fadla bi yadillahi yutihi man yacha nee na noonu la ngëneelu yàlla ci moomeelu yàlla la nekk moo koy jox ko soob waaye noonu la waxta tamit nee na ngëneel yi daal yàllaa leen moom moo koy disperser ki ci ki ko soob yal leen yàlla dimbali ci kattanam yal leen yàlla dimbali ci lam leen dénk ak la leen askan bi jiital fa leen askan bi yónni yan naleen leen yàlla jàppandalal ngeen defee ko comme niñ ko bëggee yàlla bu yaakaar tas amin ya rabbal alamin moo tax yàlla ne wa ak picc yi tàggal tannaa ko yenentu yàlla daawuda mahsuratun ñu doon ay kuréelu kuréelu ay xëytu njanaaw yu bëree bëree bëree bëree waaye nag kullun lahu ñoom ñëpp dañoo jébbal seen bopp awaab jëmale ko ci yonent yàlla daawuda kuréelu picc yooyu ndax daawuda dafa jëlbal boppam yàlla jëbbal xolam ak kattanam ak mémoire am ak système de vie am ko borombi bi borom bi tàggatal ko kuréelu picc yu kenn du mun a takk ci lim ñoom it ñu jébbal seen lépp yonent yàlla daawuda alayhi salaam bor ne jébbal boobu mu jébbal boppam ci sama nguur ba tax na loolu ma ko compal ci nguur bu ma ko jox wa shaddadna mulkahu ñoo ko dëgëralal ñoo ko jàppandalal ñoo ko dimbali ci suñu kattan ñu kattanal ko dolleel ko nguur bañ ko jox mu mën kaa tiyi amul coup d'état vot vote amul remaniement amul dara loo xamante ne dina soppi nguuru yonentu yàlla daawuda yàlla ne wa mul mulkahu ñoo ko jàppandalal ci nguur yañ ko jox waaye nag yemuñu ci di ko jàppandalal ci nguur woowu ko jox waaye wa aataynaahul hikmata ñoo ko jox hikma sagesse bi toll ni mu mën a am xam-xam ba muy diriger doxaliinu montagne yi waaye ñoo ko jox xam-xam ba muy mën a diriger doxaliinu njanaaw ya jébbal seen bopp fa moom waaye ñoo ko jox xam-xam ba mu mën a diriger doomu aadama yi waaye yàlla ne yemuma jox ko xam-xam ak dooleel ko ci nguur yañ ko jox waaye nag wa faslal xitaab man yàlla bokk na ci li ma ko jox mooy mu war a mun a leeral discours yoo xamante ne bu ko jëmalee si doj dinañu ko xam dina leer nañ si doj yi waaye nag bu ko jëmale ci doomu aadama yi tamit doomu aadama yi dinañ ko xam dinañu xam la daawuda jëmale si ñoom alayhi salaam te loolu noonu nag bokk na ci mbokk yi la koy maye mooy la yonentu bi ne sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ba nga xamante ne mooy fii ma rawa buxaari wa muslim ci e, xadisu saxiix qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila alsamai dunya xiina yabqa thulusu lleyl al axir yaquul man yadcuuni fastajaba lahu wa man yasalini fa aatihi man yastaxfiruni axfir lahu axrajahu buxaari wa muslim sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi moo ñu ne yow jullit bi del saxoo di dexalanteeg sa borom wala di déeyanteeg sa borom di am ak munaajaat aw di déyanteeg sa borom di wéetalanteg sa borom xaaju guddi bi nga xamante ne keroog ba suuf si seddee nga daldi di jóg déyanteeg sa borom diis ko sa soxla kon yow mi nga xamante ne yow la askan bi yëbbante ngir nga teewal leen ci pincum ndaw réew mi bul yaakaar budget yi notal bul yaakaar ndomb tànk bañ la jox nanga yaakaar kattan bala yàlla di may kattan bala yàlla di baaxee liggéey bi sell liggéey bi rafet liggéey bi ñoŋ mu mucc ayib ndax la tax ñu nit ñu di leen ko waxtaanal mooy suñu diine ba ñu nekk di dund ak diinu nasiha diine laahante biir la ba tax na yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ne yunazzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila samaa'i dunya nee na buur yàlla buur bu kawe bi buur yàlla buur bu tedd bi day wàcc ci guddi bu ne ba mu tollook asamaanu àddina bi ñu tiim nii nee na xiina yabqa sulusu leyl keroog ba ñetteelu xaaju guddi bi dese tuuti nee na buur yàlla day wàcc ba mu tollook asamaanu àddina bi mu daldi laaj yaquul buur bi di joxe benn annonce mu naan man yaduuni ana kan moo may ñaan fastajaaba lahu ma nangul ko lang may ñaan waaw ana kan mooy ñaan ci waxtu bi ma nangul ko lang may ñaan man yasalu ni fa utiihu ana kan moo laaj ma jox ko man yastaghfiruni ana kan mooy sàkku njëggal fa aghfir lahu ma jéggal ko axrajahu buxaari wa muslim hadis bi buxaari ak muslim ñoo dëppoo génne ko mbokk yi ndegem bur yàlla subhaanahu wa taala yonent ba mu yónni ci xeet wi moo ñu ne dafa am waxtu wi nga xamante ne bur suñu borom tabaraka wa taala day wàcc ba mu tollook asamaanu àddina ci nameelam mu daldi wax ne ana kan muy jóg ñaan ma ma may ko ana kan moo may woo ma wuyu ko ana mooy jéggalu ma jéggal ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu xamulu toon lii duñu ko mën a xam amul kenn ku ko mën a xam ndax yàlla xamalu ko kenn ku dul ki mu yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi salaatu wassalaam mbokk yi lii yëpp day tegtal ne yow ujaaj ba dem aji màkk keroog bi nga demee ziyaare buqaatu sharifa bérëb bu sell boobu noonu ci rawdatun min riyaadil janna jardin arjana ya nekk ci bérëb bu sell boobu foofu yonent bi nekk sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkam bu set woowu moo tax boo demee nga daal di jàkkaarloo ko minbar yeeg barrière yi nga naan ko assalaamu aleyka ya rasulallah assalaatu wassalaamu aleyka ya nabiyallah allahu akbar nga daal di ko wax ne qad ballagta risalata wa addalta al amaana wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadihi hatta ata al yaqin nga ne ko ñu ngi lay nuyu di sàkku di ñaan yàlla yal na la yàlla dolli wàcceel xéewal ak jàmm ak barkem ak yërmandem ci yow mi yàlla yónni yal na yàlla wàcceel barke ak yërmandem ak xéewalam ci yow mi yàlla sopp ci mbindaafoonam yi maa ngi seede ne ca dëgg dëgg dëgg dëgg xad addaltal amaanata ah bala yàlla jox matale nga ko de waaw xat balagta risalata message bala yàlla jox partagé nga ko kóolute bala yàlla confier matale nga ko joxe nga ko waaw laaxe nga biir xeet wi kat na saxtali umma laaxe nga biir xeet wi conseil nga xeet bi bay nga fi mahajjatul bayda bàyyi nga fi lay bu leer naññ guddi beeg bëccëg bi ñoo bokk yem waaw waaye nag laxasaayu nga taxawal nga faral nga dëgg ba keroog yàlla jëli la ci kaw suuf si sallallahu alayhi wa moo ñu wax ne guddi bi bu xaajee ñetteelu xaaju guddi bi bu desee tuuti buur yàlla day wàcc ba mu tolloog asamaanu àddina mu am la mu wax ak jaami yàlla daal di joxe message bu fort bu toll ni mu ne man yad'uuni fastajibu lahu ana ku may woo ma wuyu ko man yasaluni fa utiihu ana kan moo may ñaan ma jox ko ana ku may woo ma wuyu ko man yastaghfiruni faghfir lahu ana kuy jéggalu ma jéggal ko kon yow mi nga xamante ne yàlla dogal na ngay la responsabilité bu toll nii lañ jox comme palub député wala xeetu njiit ba nga xamante ne tabb nañ la nga jiite la nga xamante ne mooy soxlaw askan bi guddi boobu bu jotee waxtu woowu bu jotaatee fekk yaa ngi ñuy bàyyi xel ci waxtaan yay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi xamal ne message bi ñu nit ñu la ko fii tegal saa yoo ko déggee nañu bokk yow ak keneen ko ñuy dégg nañu bokk déglu jëfe xadiis yu yonent bi waxtu woowu mbokk yi c'est yalla pour tànn ñetti woote wi ana kan mooy ñaan ma wuyu ko ana kuy woote ma wuyu ko ana kuy laaj ma jox ana kuy sàkku njëggal ma jéggal ko ndax ñett yi la doomu aadama nekk di dund te jëfe beeg joxe beeg wuyu beeg effacé bi nekkul ci loxo kenn ku dul ci moomeelu yàlla moo tax yàlla muy joxe nee na ana kuy ñaan ma jox ko yàlla miy wuyu ki ko woo mu ne ana kuy woote ma wuyu ko yàlla muy far bàkkaar yi mu naan ana kuy sàkku njëggil ñu effacel ko ñu gomeel ko ñu supprimel ko rëcc-rëcc ya mu defoon ndax lii buñ ko déggee xel yi war nañoo war a mën a dem ne du malaaka ko mën a def ndax du yëfu malaaka xel yi mën nañoo dem ne du jinne ko war a mën a def ndax du yëfu jinne xel yi mën nañoo dem ci amaana doomu aadama moo ko mën a def non ndax lii doomu aadama mënu koo def du yëfam kon lii du affaire buxaaba du affaireu sëriñ du affaireu marabu du affaireu intellectuel du affaireu philosophe lii domaine yàlla la moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yunazzilu rabbuna tabaraka wa suñu borom buur bu kawe bi day wàcc kulla laylatin ila samaai dunia guddi bu ne ba mu tollook asamaan àddina xiina yabqa thulusu leyla al axir ñetteelu xaaju guddi ñetteelu xaaju guddi bi bu desee tuuti nee na buur yàlla day wàcc mu tollook asamaanu àddina muy laaj yaquul mu naan man yad'uuni ana ku may woo fastajaaba lahu ma wuyu ko man yasalu nii ana ku may ñaan fa utiihu ma jox ko la may ñaan mu teg si ne man yastaghfiruni ana kuy sàkku njéggal fa man yàlla faghfir ma jéggal ko kon mbokk yi ñu déggee ci maana xadis bi ba léegi ndegem buur yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo fi nekk di jéggal bakkaaru doomu aadama yi di jox doomu aadama yi lañ ko ñaan di wuju doomu aadama yi ca lañ koy woo kon lii du domenu lenn ci mbindaafoonu yàlla yi waaye domeenu buur bi la subhaanahu wa taala moo tax ki mu yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam mu nañu bu waxta bu jotee buur yàlla day wàcc ba mu tolloog asamaani àddina mu daal di diisoo ak képp koo xamante ne xam nga ne waxtu bi kat daal di waxtu déyanteeg sama borom nga daal di jóg fekk nit ñi la ci gën a ëpp la ci gën a bëri ñii ñu ngi topp seeni banneexu bakkan ñii ñu ngi seen digg nelaw ñii ñu ngi nekkee ci leneen lu wuute ki yow la nga nekkee ndax la ko waral yow danga nga sóor waxtu wi ne waxtu wi kat mooy waxtu ba mu war a déyanteeg sama borom nga dal di jàpp dal di dëgg sa nelaw wàcc sa kawlal laal ndox laab jàkkarloog sa borom di ko ñaan ñetti question ya nga xamante ne moom la la borom bi posé kon yal nañu ko yàlla jàppandalal ñu nit di ko yóbbante kenn ku nekk ci askan bi nañ leen fonk waxtu woowu ñuy déyante suñu borom di ñaanal suñu bopp di ñaanal suñu bopp di ñaanal suñu njiit ñi rawatina ñañu jox suñu xob ngir ñu teewal ñu ci pencum ndaw réew mi waaye nag ñoom it ñu ngi leen di dénk bu ñu fàtte waxtu wi nañu jóg ñuy ñaan yàlla di ko tàllal loxo di ko ñaan ngir mu yombal leen mu woyofal leen yen wi nga xamante ne moom leen askan bi yen waaye nag euh, yàlla may yombal lépp lu jafe ñu ñaan ko mu yombalal leen la nga xamante ne mooy confiance yeleen askan bi dénk yàlla defal leen lu kawe suñu njort amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan waxtaanu fajar ci réew mi FM 97.5 lii la leen andil ñu fas yéene ko yóbbante suñu député yi ñu toogal ci assemblée nationale ñu. fas yéene yemandi waxtaan bi fii waxtu bi jeexul waxtaan bi jeexul waxtu bi moo ñu xoj ñu fas yéene jébal béréb bi ñay joxe xibaar incha allah nasalullaha jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha